kon bok président Macky Sall bu lu ministère de la formation professionnelle de l'emploi et de l'artisanat jox notre frère et ami monsieur le ministre Dame Diop jël ku mon man mon président Macky Sall mu jël ku melni man denk ma ONFP lolou dafa nek lo xamni dara kon djourbel L'humour, amul ci formation professionnelle dafa fekk man mu neex ma wala fekk mu neex monsieur le ministre damdiop Diop fi may jeexalee mooy ci ministre Dame Diop damay wax yéen journalistes yi di wax suma ay nit que ni diggante le ministre damdiop Diop ak docteur souleyman Soumaré je le dis monsieur damdiop c'est mon ministre et c'est mon patron té loolu bëgg naa ñëpp xam ko Jurbel nañu fexe ba dox walla wax loo xam ni mooy rattaxal diggante yi nañu fexe ba dox ak wax loo xam ni mooy tax ku nekk lii sa yéene pour Jurbel jëm kanam nga mën ko liggéey mais bu ñu bëggee indi problème diggante ministre Dame Diop ak docteur Soumaré man damay wax de manière solennelle ko problème amu fi problème musu fi am te incha allahu rabbi problème du fi mës am monsieur le ministre Dame Diop c'est mon frère su ma woowee yónni ma dam parce que je suis sous sa tutelle technique il faut que nit ñi xam loolu te du permettre kenn wala may-may kenn mouy indi benn grain de sable bu ndaw suma digganteeg mom. je pense que bu ñu defee noonu liggéeyee nous ñi nga xam responsable politique yi au niveau de Diourbel di liggéeyal président Macky Sall wala ñu bokk coalition Benno Bokk Yakar, ñun ñëpp dañu war bokk ndey bokk parce que président Macky Sall desee tout tuñu dara De la nous ngi koy ñaan yeneen poste DG parce que am fi ay responsable yoo xam ni am compétence war nañu am poste de responsabilité mais li nga nous ni jot man je pense que ñun ñooñu bu ñu liggéeyee ak ñi nga xam ni amaguñu ñu bokkul liggéey ñun ñëpp pour un seul but un seul objectif d'abord le développement de Diourbel parce que ñun ñoo ko war a def yàgg naa wax ni politiciens yu bari am ndombo tànk yu yër yu bari yu rëy dañu doon dundee Diourbel mais daawuñu dundal Diourbel et je pense que génération bi nga xam ni moo fi nekk tey dafa war a nekk génération boo xam ni dafay dundal Jurbel mais du dundee Jurbel donc loolu bu ñu ko dafee taxaw si yaakaar naa ni noo seulement Jurbel dina fi jaar suqaliku mais aussi li nga xam ni bëgg nañ ko sur le plan politique dinañ ko daf loolu dafa nekk loo xam ni lu ma gëm la lu ma yàgg wax la te itam dafa nekk loo xam ni lu may défendre la toujours si côté unité bobu nga xamni ni ko dafa nek lo xamni man luma Amne ñor la amna lo xamni xeyna mi ngi ratax wala mi ngi deuguer ay responsable li suma rôle man moy, yoré suma bâton de pèlerin fexé ba responsable yépp retrouvé wu nek ben. Bir tierno kanji, luñ ma jiital jiital dama fi am ay kilifa su may kilifa mooy taajaareetu Sarr ak mama Umu Ba amul dara lu may yëkkati biir Thierno Kandji te duma leen woo waxtaan seeg ñoom ñu ñaanal ma jox ma si ndigal ma mën ko def wala ma mën ko dox maa ngi nuyu aussi ki nga xam ni mooy le DG Moustapha Guèye muy DG Crous mu nekk aussi nit koo xam ni liggéey na lu bari au niveau de Diourbel te ba léegi mi ngi liggéey Diourbel lima ma gis ni jël na ko ci ay emploi au niveau de Diourbel en tout cas man dafagumako te gis naa ni ñu bari dafaguñu ko kon boog DG Moustapha Gueye aussi mi ngi liggéey lu rëy Diourbel mi ngi gën a lu rëy Diourbel mais man balamay content kontaan dëgg dëgg tous les responsables ñu retrouver wu nek ben loolu mooy tax liñu bëgg Diourbel ñu mën ko am kon bok maa ngi ñëpp maa ngi gërëm ñëpp képp koo xam ne waroon naa tudd sa tur te tudduma ko maa ngi lay jéggalu di beral remerciement ndey Maguette Wade nga xam ni nekkoon na ci organisation bi tey ba lépp loo xam ni am na fi côté Agnac lu demee noonu moom moo ko géré moom moo ko yoroon jóge ba dakaar donc maa ngi koy remercier ak équipe bi nga xam ne ñoom la àndaloon di remercier aussi fanfare nationale bi nga xam ni jaar nañ fi. bégal ñu kon ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier encore une fois le comité électoral de Thierno Kandji je suis à votre disposition je suis votre serviteur et je suis à votre écoute kon boog ma ngi nuyu ñëpp di remercier ñëpp salam